Euh, asalaamaaleykum oustaz Ban Diop mi ñu fi fekk yàgg euh, sama turando seenu jaawara nga xam ne notable la fii ci biir quartier bi di responsable ci dëkk bi aussi ah, euh, ñi fi ñëw tey moom mooy waa coalition Benno Bokk Yaakaar yu nekk ci gox bi carrière dixième escale ah te ñoom ñii ñu jiital ma ci dañoo waxtaan waxtaanoon fan yee ci ginnaaw dans le cadre ci ni ñuy yëngatee yëngu yëngatuwee suñu suñu activité yi ñu ne dañuy def benn conférence ci weeru koor bi conférence bi def nañ ko samedi bi passé yàlla def ci réussite ah am ñu jàppale li doon suñu yéene nag moo doon buntu kër gu nekk ñu dugg fa dugal fa suukar waaye euh, loolu mujjul antu waaye lañ ci jëlee ko su néew ñu am sunu benn mag bu ñu wax Bouba Diop génn xalaat bu rafet ne ah comme dañoo am lu ñu yéene mun nañ yeggale yéene gi ci bisu laylatul xadri yi xool ci gox bi lépp li fiy jàkk wala daara ñu wut meew ak suukar ak café yóbbu ko fa comme foofu ci guddi gi bis bi nit ñi dañ fay dajaloo te dañuy dañuy yittewoo xéewul ci guddi gi ah ñu am yaakaar ne kat buñ ko defee yàlla dina mottali suñu yéene ci li ñu bëggoon ci biir nit ñi loolu moo waral ma ànd ak ñi ma àndal Moustapha Ndiégué ni ngi nii Kayta Aluseynu Johnson ñi wa Thiès info lañ sar honorable député Ndey Fall ak madame Camara Dienaba Diallo ah ñu wër gox bi ngir indil leen li di sakku itam ñaan ci yeen élection yi ñu jëgmal ngeen ñaanal président Macky Sall ngir yàlla mun ko may ndam ba mu yeggale ma bëttam ci biir dëkk bi loolu daan moo doon tànk yi ah di leen euh, jaajëfal di sàkkuwaat ñaan di leen remercier bu baax ci dalal bi ngeen ñu dalal yaakaar naa turandoo mun ngaa jël kàddu nga am quelques mots yoo ci sànni merci. jërëjëf donc euh, ñu ngi leen di leen sant bu baax donc di nuyu coordonnateur Ousseynou Diouf xamante nañu bu baax ndax euh, ci koñ bi la dëkk di yëngatu aussi ci mbirum sport bi nga xamante ni ci lañ bokk di yëngatu aussi ci mbirum social xam na xam naa ko ci lu bare bare di nuy aussi sunu jigéen bi inspectrice nga xamante ni encadré nañu bu baax ci ay jamono leen nuyu yéen ñëpp ci nekk xam naa leen ci li ngeen di yëngatu ci yu bare bëri donc leen sant bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii ji bi moom woo léegi rek ne ma euh, li nga wax léegi rek la la la ma fëddaliwaat xam ni euh, yéen a ngi dox ci euh, diini ji di xool fépp foo xam ne jàq am na fa wala daara am na fa. Ah, ngeen xool ñëw pour xool naka ngeen ni mën a andi seen participation ci guddi rayatul xadar bi donc mu ne ma nag comme fii carrière am nañ fi jàkk tamit loolu moo seen mbébét ngeen ñëw fi donc dama génnoon dama demoon fële ci sama suñu tool ba fële bi ma ñëwee léegi sax laa ne xaaraban ma ñëw seet euh, oustaz kii nag euh, mooy jàngal xale yi fii waaw fii di nekk ci daara ji fi la ñu dëkk seen lépp fi lañ ne donc daara ji nek nek daara jo xamanteni euh jang alcorane rek la ñu xam jàng alxuraan euh, ci lañu nek suba ci lañu nek guddi ci lañu nek beujek tay ji bo ñoon fi 4h du matin fekk lañu ñuy téré buñ ñu fajar ba paré ñu nekkaat di jang alcorane ba 7h buñu yelwaan fi duñu du koñ bi duma 30 minutes ñu dellusiwaat jang alcorane donc loolu lañu leen xamé ñom ñoy jité fi donc euh, te fii it néewu yàlla la lu fi waaye defe rek suñu borom nga ko defal te suñu borom nag am fayam moom amul fu mu commencé amul fu mu yem waaw donc leen ñaanal li ngeen seen bébét yàlla def ci lu weesu seen jort guddi laylatul weeru koor moom ah nit woor ba pare eh, nga jox ko lu mu ndogoo wala nga jox ko loo xamante ni mën na koo xëddee wala neen kooku moom kenn amul fayam donc ñu leen ñaanal bu baax a baax ci li ngeen commencé ngeen àggale ko lépp foo leen gis ci dëkk bi ñoo xamante ni laaj nañu ak ndimbal loolu lañ ci mën a jàpp ngeen jàpp ci leen remercier bu baax a baax jox euh, mbokk yi asalaamaaleykum wa tax taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu ñëpp seen tur seen sant góor ak jigéen mag ak ndaw di leen dalal seen wàccuwaay xam ne lii ngeen def lu rafet la lépp lu ngeen si yéene ak lépp lu ngeen si neesar ak lu ngeen si bëgg yéen ko xam ñun xamuñu ko ak yàlla suñu borom yàlla moom suñu borom defal lu kawe seen jort fajal leen seen aajo saahiran wa baatinan ci barke alxuraan ci barke weer koor gi barke guddi gi gu mag gi nu jëm mu xayru min alfi sahrin moo gën junni weer te nasalu malaayikatu wa ruuhu fiihaa bi izni rabbihim min kulli amrin malaaka yi dañ ciy wàcc kem képp koo xam ne ab jullit nga rek guddi gi moom fekkee yow aw yiw bëgg nga aw yiw waroo koo rete bu yàlla dogalee sax mënoo koo màggal lii nga def nii fekk ñoo xam ne dañ koy màggal nga bëgg ko xool loo xam leer na lii dina ko yittoo si wàllu ñam maanaam si wàllu lekk wala ci wàllu naan nga dem wutal ko toppatoo leen ko ñoom yiw wuñ sa def rek yéen a koy bokk tuyaaba ja maanaam ka kay jëf ak ka kay defal ñoom ñëpp ñoo bokk yiw wa bu doon ko yow mënoo wàcce kaamil doon ko mënoo jàng xasida sax yoro sa kurus di julli si yonent bi di màggal guddi gi képp koo gis xam ne maa ngi koy màggal loo ko mën si jàppale ko jàppale ko ndax lii aw yiw woo xam ni bonus la promotion ndax ëllëg ëllëg bu leen ko suñu borom fayee rek da ngeen rëccu ni lan doon def sa lu baax deen ko yokk rawat na fi ngeen ko lebal muy si néegu suñu borom ak si ja jàkka ji nga xam ne dañ fi jàng alxuraan ñu wàccee keneen pare mën a defar suñu meew wala defar suñu kafe képp koo xam ne ni nga fi rek ñu bernee la ko loolu aw yiw la woo si nii noonu lépp lu def su lu baax rek ba ëllëgee dina ko rëccu ni ko rëccoo mooy la ma doon def su lu baax su ma yëgan lam doonan ma yokk ko ba mu doon maanaam ab lim sàngam la ma def xeeb naa ko la ma doon fekkee da nga def safaan nga ne su ma yëgal la ma su ñaan suñu borom musal ma bañ bañ koo def kon lii ngeen def xeebu na ko naw na leen sant na leen si gërëm na leen si ñaan suñu borom lépp lu ngeen si yéen ak lépp lu ngeen si bëgg ñaan suñu borom defal leen si kawe seen jot fajal leen seen aajo saahiran wa baatinan si barke alquran jërëjëf jasaakallaa xeeran